ci xutba bi weesu ñu ngi doon wax ci ak nafiq ak ay xaajam ci xutba tey bi ñu jëmale ko ci safaanu nafiq te mooy ku gëm yàlla ku dëggu ci ngëm yàlla ñu xam ne bokk na ci li gën a fés ci luy ràññatle diggante ku gëm yàlla ngëm yàlla gu dëggu akum nafiq li leen di ràññat rek dëggu ndax naafeq li gën a fes ci ay melokaanam mooy wax lu dul dëgg moo tax borom bi ne wallahu yashhadu innal munafiqina la kazibun suñu borom tabaraka wa taala mi ngi xamle wàccuwaay bi dëggu am mu ne yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te ngeen bokk ci ñu dëggu ñi dellu wax ne ëllëg yowmal xiyaam suñu borom day wax ne tey jii ñi dëggu woon seen dëgg gi dana leen jëriñ borom bi ne danaa laaj ñu dëggu ñi seen dëggu ga waaye nag waajalal naa ñu weddi yàlla mbugal moo xam ne mu tar la borom bi della wax ne dana fay ña dëggu woon ci seen dëggu googee li yajzi allahu saadiqiina bi sidqihim waaye dana mbugal naafeq yi nga xam ne moom dëgguwuñu bu ko soobee bu ko soobee itam nag mu jéggal ku ko soob inna allaha kaana gafuran rahima mbokki julli yu dëggu nag dafa am ay tolluwaay ak i wàccuwaay ba ca jiitu gën ca kawe mooy dëggu ci yéene yéene ja nekk lu sell loo xam ne suñu borom rekk moo ko tax a jóg jaam bi dem ba la koy dugal ci mbir wala mu ko cay génne lay tax muy yëngutu wala mu dal lépp sàkku ngërëmul suñu borom tabaaraka wa taala rekk lay doon bokk na ci màndargay dëggu ci yéene amuk dogu ci jëf ja sa yo démé bam jappandi la nga dogu ci def ko nek la nit dana yéene dara ba nopi ñaka dogu ci def ko su ko dee def itam man na ca dajeeg ay metti metti ak jafé jafe-jafe loola bu fekkee deggu na ci yéeneem loola du té mu wéy ca la nga xamné mom la yéene won ci lu baax dimbandikoo suñu borom tabaraku wa taala suñu borom nga wax ne amna ci ñi gëm yalla ño xamna ñu deggu lañu ñu dëggal lañu la ñu wëllërante woon ak yàlla am na ci ñooñu ñoo xam ne jot nañu jiitu ji am na ñu fi des waaye soppiwuñu dara ca la ñu diggante woon ak seen boroom ci jaamu ko wéetal ko duñ ko bokkaale ak dara ñaareel ba ci tolluwaayu dëggu mooy nag dëggu ci ay wax dëggu ci wax nag am na melokaan yu limu la ca jiitu mooy dëggu ci tuxal xibaar ki deggu du tuxal lu dul xibaar boo xam ne bu deggu la bu wér la te lay tax mu koy tuxal itam day jàpp ne tuxal ga amal na njariñ ñam koy yóbbul mak ci xibaar nag day laaj wóor li bu baax xibaar sori lool ay njot sori lool ay demale ki fekkale ki dégg na ak itam di waxtaane lépp loo xam ne nga ko nga nettali ko loolu ki deggu ci ay waxam gu mel noonu ku sàmm aw làmmiñam ci di xibaare mbir ci lu wuteeg na mu mel kookee day ku dëggu la lu muy xibaare lu nekk da koy gëstu ba mu dëppoo ak na mu amee mu dog ko xibaare yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na wattandiku leen njort ndax nee na njortkat moo gën a ñàkk wax dëgg ci waxtaan yi su fekkee li ngay wax ci njort dong la toll kook kon bu ko tuxal ndax inna zanna laa yuxni min alxaqi shay'a yonente bi alayhi salaatu wasalaam delloo wax ne doy na ci nit ki muy wax lu dul dëgg muy lu mu dégg rek nettali ko kuy def loo dégg nettali ko xamal ne bokk nga ci ñiy wax lu dul dëgg ndax loolee ngay nettali lu ca baree baree bari du dëgg te ñëw ña ngi ko nettali ñooña moom ci yow lañ ko jële dëggu ci ab dig loo diggee nga dëggu ci fas ko yéene def bokku na ci deggu ci ay wax ndax ab dig wax la da ngay wax ne digé na nangam kon matal ab dig na ci deggu ci walu wax dig nak man na ak jamono kon la nga def naa ko def ci waxtu sangam nga gorlu ba def ko ci waxtu man na lënkaloo ak barab nga ne barab sàngam falaa koy defé wala dana fa dem wala dana fa tew nga gorlu ba matal dig bob ndax kat wutal ab la nga dige woon ci loo xam ne la koy layale nekkul lu sore a nangu loolu dañ koy boole ci wax lu dul dëgg moo tax suñu borom tabaraka wa taala mi ngi tagg Ismaayil alayhi salaam ne innahu kaana saadiqal waat moom day ku dëggu woon ab dig la wa kaana rasulan nabiyya bokk na ci dëggu ci ay waxitam di matal ay kóllëre di matal engagement yi nga xamne ya ko jël nga diko matal sa kem kattan borom bi tabaraka taala neena ya yaa amanu awfu bil uqud yeen ni gem yalla de len matale pas-pas yi dox seen diggante ak nit ñi mo xam lu mën a doon nga juboo ci ak nit mo xam walu liggéey ngeen seq wala sax ñaar ñi nga xamne dañuy sey sax pas-pas lañ seq da ngay dégg ñu na fas dañ ko te ci turu suñu borom tabaraka taala lañ koy fase kon kenn ku ne la cay sa aq war nga caa taxaw la nga warlul kan ko seqal ci ay aqam nga jéem ko matale borom bi ne wal bi aadihim adu bokk na ci dëggu ci waxitam ngay matal kóllëre goo xam ne kóllërante nga ko loo xam ne digg nga ko bokk na ci matal kóllëre nag sàmm ay secret ndax nit ki bu la dara ne la lii nag sama diggante ak yow rek la nga jox ko kóllëre ne ko waaw bu dee man de keneen du ko dégg loola sàmm nga bokk na ci dëggu ci wàllu wax waaye su fekkente ne génn nga secret ba loola bu boobaa tabbi nga ci melokaanu ñàkk a dëggu te melokaanu ñàkk a dëggu nag mooy melokaanu nafiq yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ñeent ngi yoo xam ne ku mu daje ci yow nafiq bu set wecc nga bu dexul dara ku ci am benn melokaan nag xam nga ne am nga nga xam am nga melokaanu nafiq nga jema a gaaw tàggali mom moom balaa yeneen melokaan yaa ñëw la ci jitu moy su waxe wax lu dul deug su digge dana wutal dig ba lam digge du ko def su kóllërantee dana war kóllëre ga su xolok nit ak mom dana ko jall wax ko lu ko war wax tudd lu mu war tudd sosal ko sax tollu way ba ci walu yi deggu moy nak deggu ci sey jëf te moy sa biir bañ a wuuteeg sa bitti maanaam li ngay wane ci bitti fekk na lu ko ëpp sax ci ak mbaax moo nekk ca biir waaye di wane ak ragal yàlla di wane ak toroxlu ci kaw ba ku ne seen jàppee la loolu te fekk na safaan ba moo nekk ca xol ba ak fiir rek nga ko def loolu itam ñàkk dëggu la bokk Yasid ibnul Xaaris day wax ne nit ki su fekkente ne lim fas ci xolam ak li muy feeñal ci ay jëf dañoo tolloo kon ku maandu la waaye su fekkee nag lam denc ci xolam moo gën a baax foofu sax liy feeñ loola ak mbaax la su fekkente ne nag li muy feeñal wuute la lool ak la nekk ca xol ba li muy feeñal lu rafet la na ca xol ba nekk lu ñaaw loolee mooy ak ndëngte loolee mooy ak jubadi bu boobaa bokki julli yi ñu xam ne dëggu am na ay jeexit yu teey yu baax yu muy def ci ki dëggu la ci jitu ki jitu ki deggu xolam day dal xelam day dal du am dara lu muy tiit ab xolam itam day ko day feex te itam day won gannaaw aduna jublu alakhirah suñu borom neena fa man yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil islam yalla ku mu nam ci yow ak jindiku day ubbi sab xol sab dënd xajo l'islam lool xir ca lool waaye ku mu nam ci moom nag ak sanku ci ak day def am xolam mu xat lool ci lépp lu jëm ci diine jëm ci lislaam du ko mën a dékku bokk na ci mandragay yi nga xam ne dëggu dana ko def ci ki dëggu ab xolam day mucc ab xolam wuruj du ci nekk kiñaan du ci nekk coxar du ci nekk jaam bi nga xam dafa dëggu ci ngëm yàllaam du ëmbal benn julit ak mbañeel wala ak coxar wala aw ay waaye day bëggal ñëpp aw yiw day laaye biir jullit ñépp di wattandiku kem kàttanam itam tooñ leen wala jalgati seeni àq ak di dal ci seeni der di ca wax lum xam ak lum xamut day xër lool ci maandu digganteem ak nit ñi waaye day xér lool ci faj aajoy jullit ñi lu mu ca man waaye day xër lool ci xettali ku nekk ci jafe-jafe ku tumuranke ku ñu tooñ lu mu man ci dàqal la tooñ ga da koy def waaye day am lu ko metti lool am tiis lol, bu fekkee kenn ci jullit ni nattu dal na ko bu metti waaye day bég lool itam bu fekkee mbokkum jullitam am na mbégte day ànd ak moom mbégte ma bokk na ci jeexit yi nga xam ne dëggu dana ko def itam ki dëggu day xéer lool ci waxtoom du ko sànq du bàyyi kenn itam muy sànq waxtoom ci loo xam ne amalu ko benn njariñ amalu ko njariñ lu koy fii ci àdduna amul ko njariñ alakhira loola du jeexal waxtom ci lool day gaawantu lool ci jëf ju baax saa yu ko talee saa yu amee wér ànd ak tal loola daf koy jariñoo ci def ca lu baax waaye sori lépp loo xam ne luy dog aw yoonam la luy sànk waxtoom la bokk na ci jeexit yi nga xam ne itam dëggu dana ko def ci ki dëddu ki dëggu mooy nag wan gannaaw taggu nit ñi ak seeni ngërëm du bëgg taggu nit ñi du bëgg seeni ngërëm wan gannaaw itam li nit ñi yore muy seeni am am wan ko gannaaw doyuloo li ko borom bi tabaraka wa taala sedd imam ibnu qayyim rahimahullah mi ngi wax ne ñaar day duñu mën a daje ci ab xol ludul ni ni ak ndox di daje xam ngeen ne ak ndox suñu daje euh, sawara moom dafay dal di jóg su fekkee daa am lu dox seen diggante itam ba sawara wa mën a tàkk ba ñi ñiiral ndox ma ndox ma mën naa dem ba ñiir ba ndox du fa desati ñoom ñaar daal seenu ànd moom bu ñu dajee directement ñoom ñaar yëpp dutuñ fa bokk nekk mu ne ñaar yi mënta daje nag mooy bëgg a sellal waaye ba noppi bëgg aw tag bëgg ngërëm bëgg ku la jay ak di xemmeem li nit ñi yore loolu mënta ànd ak ngëm yàlla mënta ànd ak itam sellal nit ki moom saa yu xasee bëgg taggu nit ñi rek li muy tekki mooy ragal na seenu xas koo gis mu bëgg ku ko tagg rek noonu la ragale ko ko xas loola nag dana tax mu def lu mu wërta def wala dana tax mu bàyyi lu mu waroon a def ngir ragal xasu nit ñi ak it bëgg seenu tag bokk na ci màndargay yi nga xam ne dëggu dana ko def ci ki dëggu mooy ay jëfam yu baax day xéer lool ci mu nëbbu du bëgg mu fes du bëgg sax nit ñi xam ay jëfam waaye bokk na ci màndargaam itam day yëg ak gàttañ lu lool lépp lu mu def ci lu baax bu ca naw boppam day jàpp ne matut jamono bu ne mi ngi yittewoo yéwénal boppam du jàpp ne baax na jamono bu ne mi ngi réparé ak a réglé boppam ak a yar boppam ak sellal ko ak laabal ak xolam ci coxar ak kiñaan ak di gëstu njuumte yi ñeneen gëstu njuumte yi nit ñi moom njuumte boppam lay gëstu waaye du tal sax eh, njuumte nit ñi bokk na ca màndargay ki dëggu day yittewoo mbirum lislaam nag lislaam da koy yitteel lool bu jàpp ne diine ji nu mu mel baax na ne man sama bopp rek ma yitteel déedéet waaye day def lu man ci alalam ci xam-xamam ci jëmmam ngir rek lislaam jëm kaw lislaam tasaaroo ndax kat ku dëggu ci bëgg nga bëgg sa borom tabaraka wa taala dëggu ci bëgg nga bëgg diineem loola day laaj sa yitte ji gën a mag mooy lislaam mën ngaa sacrifier sa alal sacrifier sax sa bopp waaye ngir bëgg rek lislaam pés lislaam jëm kanam dara bañ ko gàllankoo bokk na ci jeexit yi nga xam ne dëggu dana ko def ci nit itam da koy ràññatle ak ku dëgguwul su nekkee ci biir mbooloo mu dëgguwul faw dana ràññiku ba wuute ak ñoom liñ koy xamee mooy ak nuuram ci diineem sax gam sax doonte mi ngi nekk ci biir nit ñoo xam ne seeni pas-pas yàqu na moom day fésal pas-pas bu wér mu ne ci biir mbooloo boo xam ne biddaa tasaaru na fa lool loola du tax mu complexe bay ànd ak ñoom ca biddaa ba waaye moom dafay dund sunnaam dëggu lool ci ngëm yàllaam su fekkee dem na ba wax lu du dëgg ak nafeq siiw lool du tax mu ànd ak nit ñi ca loola waaye day dëggu ci ay jaamu yàllaam donte mi ngi ci biir mbooloo xam moo xam fo ak caaxaan rek mooy seen yitte du tax mu complexe bay ànd ak ñoom ca loola waaye moom day wéy ci ak jaamu yàllaam su ko defee kon ak ràññikoom ak wuuteeg mbooloo mi nekk day daal di fis lool ku gëm yàlla ku dëggu bu nekkee ci biir yi naa fekk biir ñoo xam ne seen diine yi teelu leen war naa fis lool war naa ràññiku lool waaye su dee mbooloo mu dugg rek nuróog ñoom ba mu cay génn demaat nuróog meneen mbooloo kooka la muy tekki mooy dëggu ndax borom bi nee na naa fekk noonu lay mel wa isa laqul lasina amanu qaalu amanna bu dajeeg ñi gëm yàlla ni gëm naa yàlla di wane melokaanu gëm yàlla waaye wa isa xalaw ila sayatinihim xaalu inna maakum su demee ba wéet ak seytaane ñam bokkal nag la mu gëm ñooña nag lay wax ne man nag fii laa bokk nag yéen laa addal kon kooku dëgguwul waaye julit bi bu mu complexe lu mu wéet wéet wéet fi barab day gis ku nekk léeg ci barab mbooloo waxtu julli jot kenn di jógut mu ne moom rus naa jóg ci mbooloo mi ndax ay kilifa fi nekk loola ak ñàkk dëggu la ndax kat kilifa yooyee ku mën a doon bokk ak ñoom bàmmeel bu la yàlla yi rek la ca ñàkk julli googee nga ñàkk julli ji ñooñee seen rek leg bopp lañu yor ñoom itam bokk na ci mandarga yi yi nga xam ne dana ko def ci borom day doon ku nangu dëgg koo xam ne itam fu dëggu ñëwee rek daf koy nangu du ca nekk di ka seetaat waaye way sallimu taslima day mokk itam topp dëgg foo ko gis itam dëgg lay seet bu dëgg feeñee itam ànd ak dalil bu leer da cay bég lool du ko te jël dëgg ci ne ko wax maa ko mag day gone du ma jël ci moom dëgg wala dëgg kim jóge ci moom day samam noon wala day samam xarit yooyu yëpp du ko ci seet waaye moom jëmmi dëgg gi rek moom lay seet yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne tumuranke texe ñeel na ñu tumuranke ña biñ ne ko ñu tumuranke ña mooy ñan mu ne nit ko nit ñu baax nekk ci biir nit ñu ñaaw ay jikko nit ñu baaxul ay nafeq ngay dund ci seen biir nga xam ne nee na ña cay juuyoog yow ñu ëpp fuuf ña cay déggoog yow nee na kookee day ku tumuranke lay doon waaye itam nag ëllëg texe ñeel na ko melokaan bi nga xam nag mooy melokaanu nangu dëgg ak fu dëgg mën a jóge ndax dëgg moom fu mu jógee dafaa jaar waaye dëkku fa qulil haqqu min ko dëgg moom ci yàlla rek lay jóge mën naa am fu mu jaar nag fu mu ba egsi ci waaye bul jàpp ne moom moom moom dëgg gi ba tax nga di ko gàntu ngir jëmmam jàppal dëgg dafa jaare ci moom rek waaye dëgg moom dëkkul fenn fu dul ci suñu borom tabaraka wa taala moo tax melokaan woowu ku ko am nangu dëgg fu mu mën a jóge da ngay daal di mucc ci melokaan yu bari yoo xam ne melokaan yu ñu ŋàññi la lu mel ni ak rëy lu mel ne kawe kaweelu ci kaw nit ñi lu mel ni itam di parparloo ci ay gisiin wala ay doxaliin walla di parparloo ci ay jëmm yoo xam ne la nga leen di farale du dëgg waaye da ngaa ñoom rek ngir sa yeneen yeneeni mbir waaye leer na ne lañ nekk ñoom du dëgg wala ngay faral ay kuréel wala ay mbooloo loolu itam kii nag bu dëgg moom dëgg bu la ñëw ne da koy peese rek fu fa dëgg gi féete rek mu daal di féete foofu boobu la borom bi nag koonu xawaamina bil xist suhadaa lillah walaw ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima seede leen dëgg te doxal dëgg doonte sax dëgg ga ci seen kaw lay dal wala mu dal ci seeni wayjur wala mu dal ci seeni jegeñaale wala mu dal ci ku ñàkk wala ci ku loola bu mu ca xeeñ ndax dëgg gi suñu borom tabaraka wa moom nga koy seedal fallaahu awlaa bihima kon nag fala tattabiul hawa bu leen topp bànneex ba tax nga xam ne fii la dëgg féete nga bàyyi ko di far feneen ngir ne foofa nga féete wala kooka moo la moo la amal intérêt nangu dëgg itam day tax nit ñi soppante ci seen biir day taxitam boroom xam-xam yi amuk déggoo day taxitam mbooloo mi ànd waaye itam day tax day dàq lépp loo xam ne taqalikoo la lépp loo xam ne wuute la ndax nag bokk na ci màndargay nangu dëgg nag jàpp ca dëgg ga ak itam nag di ko wax moom dëgg ga waaye itam nag di ca woote ci loo xam ne doo am dara looy dengi dengi, wala dara looy laq-laqal ki dëggu doo ko gis lu moy mu nekk koo xam ne fu mu toll day jéebaani dëgg di ko siiwal du ca ragal yedd ku ko yedd te itam du ca maslaa du ca ragalante gannaaw ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa mu boole ci ñu dëgguñu lii lenn la ci mandargay ku dëggu te dëggu moom soo ko defee rek mu mucc nga ci naafeq ndax ñaar yooyu rek moo leen ràññale alkasibu wa sidq naafeq mandargaam mi gën a rëy mooy alkasib ki gëm yàlla mandargaam mi gën a rëy mooy as sidq baatu al iman sax ci sidq la jóge ci dëggal la ci dëgg ci la baat bi jóge kon ki am ngëm yàlla li muy tekki mooy ku dëggu la ci biiram ak ci biteem ci yéeneem jëfam نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين المخلصين نية وقولا وعملا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين